li nga xamante ne moo di coalition Yewwi Askan Wi dañu fas yéene woon amal lii di euh, marche fi nga xamante ne mooy fi ñu nekk nii mooy euh, buntu université Cheikh Anta Diop de Dakar jàpp fi nga xamante ni moo di euh, rond gis nag gis nañ ci benn dispositif sécuritaire bu am solo sànq ba léegi étudiants yi ñoom fii lañ nekkoon di yëngal vraiment di sànni xeer ñoom ak ñi nga xamante ne moo di takk der mel ni nag mu nekk ni situation bi vraiment nekk na situation bi nga xamante ne yi léegi arrêté nañ oto yi ñuy commencé di circuler ndànk nag mais université dañ ko tëjoon la mort sànq nga xamante ne ne ñoo takk der yi di gazé foofu donc comme ni ngeen ko gisee ah fu mu nekk ni moom vraiment transport bi moo ngi fluide gars yi ñoo ngi dem ak ñëw mais Euh, vraiment dafa tàngoon jër jër jër jër jër jër te kenn mënu woon dem kenn mënu woon dikk gis nañ ci nag li nga xamante ni moo di dispositif bu am solo ci fàttali nag gis ngeen ñi nga xam doo di coalition bii di euh, Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko fas ni moo di bi war a am ñoom ak ñi nga xam xamante ne moo di Mame Mbaye Niang di procès de diffamation bi toll ci 29 milliards donc mu nekkoon le troisième renvoi suba moo war a nekk quatrième procès mais fi mu nekk ni moom situation bi euh, la dog ñu gis que ni euh, depuis li nga xam te moo di le 16 mars dafa jër di yëngal tay tamit ñu ñëw ñu ne dañuy yëngal malgré que li nga xamante ni moo di préfet dafa interdire li nga xamante ni moo di manifestation bi ndax dafa ne trouble à l'ordre public ñoom ñi nga xam moo di coalition yi ko dañ ko maintenir oon mais li ñu gis daal li nga xamante ni moo di takk der yi ñoom vraiment maintenir nañ li nga xamante ni moo di euh, situation bi ndax fële ci cité kër gi dañ ko barricadé woon fépp depuis suba ba léegi Ousmane Sonko mu ngi woon di génn foofu dañ ko barricadé woon fi nga xamante ni moo di fii ci euh, université Cheikh Anta Diop yi tamit dañ leen tëj ci biir ñu ngi woon fii nag sànni ko sànni ñi nga xamante ni moo di takk der yi mais bi nekk na à la norme gars yi ñoom ñoo ko euh, maîtriser vraiment mu mel ni nag euh, vraiment fi moom mu toll ni yëngu-yëngu bi moom tane na baax baax a baax a baax alors suba mooy procès bi war a am diggante Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko le 30 mars ci ba tamit mu mel ni ba situation bi a tàng tuuti ndax ki nga xamante ni dégg ngeen démb Ousmane Sonko déclaration bi muy def dégg ngeen tamit déclaration ki nga xamante ni moo di procureur moom bi wax ay li nga xamante ni moo di le commando commando Pastef wax ci ay dégg nañ ko ci nga xamante ni moom moo ko am alors suba daal mu ngi foofu rek léegi sama ànd sama caméraman rek ñu dem boor bële xool foofu tamit mais mu nekk daal situation bi dara yëngatuwul euh, Ablaye jéem a dem fële rek mais bu ñu mokki naa mën nañ jàpp ko nii dara xew ko fii ci université sànq nag gars yi ah waaw sànq nag gars yi ñoo ngi fi doon yëngal bu baax mais moom c'est bon quoi bu nañ ne dara xewu waaw alors de l'autre côté aussi à Guédiawaye foofu aussi euh, ñu gis gaa yi ñoom ñoo fi doon marché malgré l'interdiction du côté aussi fi nga xamante ni moo di euh, Saint-Louis gars ñoo fi doon manifester fii moom vraiment gars yi gars yi manifesté wuñu manifesté woon nañ sànq mais fii moom vraiment y a e e na à signaler à part quelques échauffourées bi amoon sànq diggante takk der yi ak étudiants yi mais dañu gis ni ñoom étudiants yi ñoo génn woote li nga xamante ni moo di jàmm mais police yi moom ñoo ngi fii ba léegi daanaka seen auto jeunes yi ñoo ngi fii barricade affaire yi n'est-ce pas di xaar rek xëy na étudiants yi moom parce que dégg naa ci commentaire bi ne dañuy xaar ba vingt nekk moom dara bi nii waaw jàmm ak salaam lañ fi gis daanaka porte sax bi nañ ko étudiants yi ñoom ñu ngi dugg di dem ak ñëw voilà ñu gis tamit lu ñaawlu li nga xamante ni presque ñu koy ñaawlu mooy li nga xamante euh, ndax nekkul li nga xamante ni lu xaar ci presse alors presse bi nga xamante ne day relayer que des informations bu ñu demee di jëlay oto di jaarale ci seen kaw di leen blessé ñu nekk c'est pas la première di leen gazé loolu tamit lu ñuy euh, ñaawlu leen ndax vraiment wax naa la situation bi nga xamante ni journaliste ñoo koy dund fii nii vraiment nekk lu métti donc gis ngeen xeer yi fii nii vraiment fii tàmbul na jër sànq diggante ak ñi nga xamante ni ñoo di euh, takk der yi ak ñi nga xamante Donc aujourd'hui, c'était une journée de manifestation que la coalition Yves avait, avait envisagé d'organiser malgré l'interdiction du préfet de Dakar euh, qui notifie que trouble à l'ordre public. Mais la coalition quand même, a maintenu euh, cette manifestation. Malheureusement, cela a été euh, par les forces de défense et de sécurité. Nous sommes ici au niveau du rond-point Université Cheikh Donc il y a de cela 30 minutes, il y a eu quelques échauffourées entre les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop et les forces de l'ordre. Donc on a vu que c'est ce qui s'est passé au niveau de la cité à Keur Gorgui. Euh, les forces de l'ordre ont barricadé presque le domicile de Ousmane Sonko. L'accès était un peu difficile. Ici aussi c'est pareil. Donc mais pour le moment nous pouvons dire qu'il y a quand même oui, euh, oui, ça ce sont les policiers. Nous pouvons dire Il n'y a pas eu beaucoup quand même d'incendies pour le moment. Ce pour le moment, c'est qu'il n'y euh, de feux pour le moment. Là, les forces de l'ordre ont maintenu cela. Alors, ils avaient de faire la manifestation quittant de rond-point. Euh, oui, ça ce sont les policiers. Donc qui s'apprêtent quand même euh, peut-être, je ne sais pas, à faire quoi. Euh, Alors, ça c'est juste que la coalition

Donc la coalition a organisé cette marche quand même pour apporter euh, quand même leur, euh, leur soutien à, au leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Hier aussi, on écouté la déclaration du procureur Général qui parlait de force de force spéciale, mais aussi euh, du commando de PASTEF, qui sont quand même des choses quand même qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. cette fois-ci, on entend des forces spéciales, quelque chose quand même qui laisse quand même un peu de peur à la population sénégalaise. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, la situation quand même retrouve, et euh, c est, la situation est à la normale parce qu'il n'y a pas quand même 200 000. de cela à minutes. Et ici, les forces de l'ordre sont là. Et quand même, la circulation quand même a repris au normal. Donc, loolu rek la ñu mën a jàppandiku fii ci université Cheikh Anta Diop bu euh, presse baa ngi fii gis ngeen oto yi xeer yi tamit nekkoon li nga xamante ni tàng na jër diggante ak université euh, étudiants yi autant pour moi ak force de l'ordre yi voilà donc fii nag mën nañ jàpp ni rek dara maanaam daal manifestation bi mën nañ jàpp ni même bu fekkee ni dañ ne woon par la force lañ koy def mel ni nag euh, force de défense de sécurité yi waaye waaye waaye mon frère ça bouge ça bouge hein ah alors ñu gis que ñu gis que vraiment force de l'ordre ci nañ affaire yi xaw ma koor gi moo la mais yi génn nañ tuuti delluwaat ci biir xamuñu ndax ndax ci kanam dinañ génn wala du génn duñu génn mais en tout cas fii au niveau de l'avenue Cheikh pour le moment pour le la situation est la normale waaw dara xewagul fii nii waaw ni làkk par rek force de l'ordre yi ñoom ñu dispersé ñu dem ñu soog a dem parce que xam nga rek situation mën na changer à tout moment étudiants yi mën nañ jël waral ñu taxaw fii sànq ba di xaar rek donc di xool ndax dara du xew mais bu ñu gisee sànq circulation dafa arrêté woon léegi nag oto yi ñu ngi circulé ndànk-ndànk étudiants yi aussi ñoom delluwaat nañ si biir mu nekk vraiment lu nga xamante ne c'est compliqué ñu ngi jëm ci à euh, ah, un mois ou bien à douze mois onze mois autant pour moi de l'élection présidentielle donc lii vraiment situation bi nga xamante ne c'est inquiétante sama caméraman bi rek fi nga xamante ni moo di avenue Cheikh Anta Diop ànd ak Abdoulaye rek lépp lu nga xamante ni xew na fi dinañ ko dinañ ko jël mu nekk moom situation bi euh, c'est la situation est maîtrisée quand voilà la situation maîtrisée Ablaye est-ce que du ñuy a dox fenn rek ci kanam tuuti xool euh, les forces de l'ordre waaw donc euh, di satellite aussi sànq gis nañ ne suñu benn naataango journaliste bi nga xamante ni oto moom moo ko euh, mbëkk mu nekk li nga xamante ni vraiment dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu bu baax ndax comme ni ma ko waxee rek doomu dam démocratie la ñu nekk nous avons le droit de donner des informations donc on n'a pas droit de glacer ay journalistes Le rôle, c'est de des informations. Alors, bu fait que nous, nous sommes là pour relayer des informations, on nous gaz. Là, on, je ne plus dans quel pays nous sommes. Voilà, donc euh, loolu rek di fàttali rek euh, suba incha allah mooy procès bi war a dox diggante ko Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang di procès de diffamation alors le novembre 2022 ci benn conférence de presse Ousmane Sonko ne am na rapport bu épinglé Mame Mbaye ci la ko le tourisme Mbaye porté plainte le 2 février bi moo nekkoon seen première fois tey ñu renvoyé ko ndax Ousmane Sonko dafa ne moom jotut ci convocation moo waral ñu renvoyé procès bi alors le 16 dañ ko renvoyé le 16 février aussi ñu gis que ni dafa amoon benn débat bu ëllëg diggante ak avocat yi dafa am ñu nga xamante ne nouvelle avocat dañu ne ñoom il va falloir que ñu s'imprégner dossier yi ñu soog a xam lan moo fi nekk ci la am benn daal débat bu métti doo am ci li nga xamante moo di salle bi moo waral ñu suspendre li nga xamante moo di procès bi renvoyé ko ba 16 mars bi ñu weesu li ñu gis tamit le 16 mars problème itinéraire parce que Ousmane Sonko dafa bëggoon jaar fi nga xamante ne moo fi ñu nekk ni mooy avenue Cheikh Anta Diop ci la force de l'ordre ji daal tracé ko benn itinéraire alors ci bu jëntal bi dañu gis dañ ko extraire ci véhicule am yóbbu ko fi nga xamante Euh, justice naka noonu naka ñu gis que ni Ousmane Sonko daal maanaam ci clinique la mujjee mooy fi nga xamante moo di suma assistance bu nekkoon daanaka quatre jours di def des soins médicaux donc mu nekkoo li nga xamante ni mu ngi toll ci euh, quatre jours alors booba léegi tamit ñu ngi xaar ndax suba Ousmane Sonko dina dem répondre wala du répondre démb la ñu woote li nga xamante ni moo di marche pacifique ak tey ak euh, suba ñu ngi wax tamit le 3 avril dinañ def li nga xamante ni moo di marche pacifique malgré l'interdiction préfet moom daf leen interdit li nga xamante ni moo di marche bi moom ñoom dañu ne duñu conforme ci li nga xamante ni moo di la décision du préfet alors moo waral sànq nag gars di fi yëngal cité kër góor gi aussi yëngal nañ ko tuuti rek donc ñu gis yi ñoo ngi foofu ñu gis ko ki nga xamante ni moo di Malick Gakou sa candidature à l' élection présidentielle de ngeen étudiants yi ñoom ñu ne jàmm la ñuy sàkk waaw ñu ne moom moom vraiment jàmm la ñu bëgg xaw nag peut parce que dañ daan gis ne étudiants yi même bu fekkoon ni les forces de l'ordre ñoo ngi fii di yëngal ñoom dañ daan génn mais li ñu gis daal mooy ñoom ba léegi dafa mel ni ah dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo woor bi daal moo leen sonal moo waral daal ba génn ñu ah, ngir ah, kii ne wàll daaw yaa ngi xeeñ kay même man instant yi nii moo ngi xeeñ samay bët <laughs> on va gérer rek parce que xam naa fële la ñu doon sànni grenade lacrymogène sama caméra bi sax fi mu nekk nii pour mu gis ah, da nga koy arrêté rek après ñu jéem a dem